loolu nag nii pour ñoom ñu joxe seen tegtal maintenant euh, ci ci déglu boobu ak yow euh, euh, ñee li ñu wax yow ban jàngat nga ci am papa. jàngat bi ma ci am. waaw il y a une tentative manifeste d'assassinat ci Damboj gis nga ko na ci auto-saisir ñu enquête ko foofu rek laa la ci tontu duma ci dugg ci leneen <laughs> na enquête foofu. bu Damboj moo gën a leer yaa ko gis sept bal mm. kooku Damboj ak nu mën a kii mënu koo inventé ñëpp gis nañ ko. Mm-hmm. na autosaisir ñu expertiser ko te gars yi nee nañ gars yi ko dàq ba dugg euh, kii comment il s'appelle. Euh, fee Radisson. Radisson mm. am na ci ñooñu xam mais procureur na seet loolu. mais Dame Mbodj ko teree porté plainte wala porté na plainte. moom xam nga ne Dame Mbodj dana porté du ko bàyyi mu sedd. Mm. mais bu porté plainte du mujj fenn. du sotti du dem fenn. yow fee sa réponse daal yow daal yaa dama lay jox rek lu gën a garaaw. waaw ah, mooy bee. mais kii ngay autosaisir fii. Hmm. Eh, wala fu nee na mais mais nag xam Sonko nag da dul Dame Mbodj Sonko nag comme ni ko waxee sànq. ah du nit. Damboy famille est un enseignant de est un élu mais papa papa Damboy papa, papa, non non non non dama il doit le savoir papa dama papa, ah, dama papa, mhm. leader papa, Ousmane Sonko on est bien d'accord mhm. donc Euh, euh, pourquoi procureur autosaisir ci bee dëgg la war na autosaisir ci lettre bu ñu def mën a enquête Dame Mbodj ba xam euh, la mu demee loolu d'accord naa ak yow mais de la même manière tam on ne peut pas comparer Dame Mbodj déedéet du question acte bi lañ wax waaw acte gis nga acte d'assassinat hmm. muy nit ku mën a doon ci Sénégal hmm. bakkan la yor nga yoru bakkan waaw Dame Mbodj fetal nañ ko ñetti sept bal hmm. bal yi mu wane ko fang presque jógee TFM à la hauteur de la mosquée de la divinité ñu fétal ko diko ko bam ba mu ak si Radisson du mhm. yi dugg Radisson ñu xam leen muy koku tentative d'assassinat bobu mo gëna woor gëna leer mais ni ci ah. saisir bu autosaisir ci bi ba bee réglé ñu ne ko demal ci bi mhm. man lo dong la la ci wax mhm. awma leen lu ma la président Macky Sall def na déclaration ci ben organe de presse français wax ni candidature

fofu amu ci commentaire awma ci benn commentaire moom yow xam nga ne moom amu ci droit sénégalais yépp xam nañ ne amu ci droit tous les constitutionnalistes yoo xam ne c'est des gens des intellectuels honnêtes nee nañ mënu koo doon léegi nee na mën na koo doon il tente une épreuve de force. waaw léegi su présenté woo ñu valider ko. qu'est-ce qu'il faut faire man awma ci benn doute buy présenté wu conseil constitutionnel valide ko. man aw ma ci bu buy dem conseil constitutionnel walla di ko. mais qu'est-ce qu'il faudra bàyyi ko mu dem. mais yow dama la koy laaj yow doo citoyen comme man benn carte laa yor nga yor benn carte. waaw lu may xeex.

Macky amul droit def troisième candidature Moko wax nul ne peut faire plus de deux mandats. mais ñu ngi jëm léegi ci candidature mu ngi gën di leer. Mané ne loolu bu amee. qu'est-ce qu'il faut faire Lo xalat lañ wara a. ko ba teg ko. waaw lo préconise. moi j'attends la réaction des sénégalais et de l'opposition L'opposition opposition yi def bu boba ma ngi ci bir. Lo kay wax na xawma ma nag lu opposition xam yow leader nga si opposition yi. opposition te yow Sénégal yi ñu ngi lay déglu. parce que mm. tay fu mu ni nii ah yow fu ngay wax ni Il y a plus de 1000

une décision comme ça hmm. nécessite une, une concertation. Le moment venu, les gens vont se concerter et décider. Man xam naa au bout du conseil constitutionnel ñu ne ko gongo ci plus de 400 arrestations actuellement. Uh-huh. mais loolu est-ce que yow. mais 400 du dara ci négal danañ dem 1000. et 1000 pas papa. ah. ndax ñu à a ah, xalaat. xoolal ma lii képp ku ñu ne les règles? rek. Hmm. dégg nga ñu dem seppi la. Mhm. ña ngay seppi dem nañ Touba xaw ma Mbàkke am na kuñ fa jël. Mhm. ña ngay jëlaat ñeneen. Mhm. ña ngay jël Tamba ña ngay jël Ziguinchor et cetera. région bu ne képp ku fay nekk espèce su leader Pastef danañ la jël. est-ce du ñoom ñooy def parce que yow. monsieur Goumbala. Hmm. yow yaa ngi ci plateau yi di wax. Ah. mais kenn seppiwu la. waxu ko fi jëf aussi. est-ce que du ñoom ñooy qu'est-ce que kenn yow kenn seppiwu la. man yaa ngi nii ci plateau yi du. mais man leader laa boo xam ne bii. par exemple samay action xagné ci plateau bi la yem hmm. fii laa mën a hmm. ndax politique amna niveau bo xam ñom ñoo def aussi ñom ils sont sur le terrain moi je suis pas sur le terrain politique comme eux hein? waaw terrain bi mais mom mi ngi ci terrain bi moko gayam barki demb lañu euh, meeting njaafat ba dafa xex ñom fuñu ñu meeting xeex fa xexu njaafat bobu kay proviseur procureur na ci autosaisir ils se sont battus à njaafat de nga xex bi Le mm-hmm. premier ministre Ndaysan gossi yi ko ne ko kay def déclaration mune maki Macky est notre candidat mm. xam nga té ku ne xam ne ne gëmu ko wax gëmuko gëmuko gëmuko way gëmu ko waaye mm. bëgg gëmu ah, bëgg ko pourquoi ngeen papa gëmuko way ah, moy nek directeur de campagne candidat waaw candidat ah, <laughs> papa gëmu ko Amadou bu sañoon Amadou Ba bu moy directeur de mm. campagne gis nga bu nek bu sañon fi mu ne nek candidat Benno Bokk Yaakaar bu ko sañoon loolu lay doon mais ils sont en train d'avaler des couleuvres nga naan wala ah bon benn bok yakar lepp naxante la lepp gëmante ñu dal ba yow hmm. mais pap naxante mu naka la man li ma gëm mooy Amadou Ba dafa gëm ni warna mu fal président Macky Sall nek directeur de campagne am hmm. Macky Sall su paré boru 2000 kii 25 ah, pare jox ko lolu la gëm boru 2025 wa 2025 mu jox ko mu jëm kañ. bu ko joxee mu jëm kañ mu yàqale woon Abdou Diouf. mu yàqal ko. ah kon kee àggale kële ah en cas d' absence. président ñu xam ne constitution bi. xam ne c' est le premier ministre qui le remplace. ah pourquoi président war a absenté. ah ma wax la leen constitution mun nga ko door. est ce que mën naa la wax leen. yow ay man mënoo ma wax loolu lu ma waxul. <laughs> dama wax loolu de. gis nga <laughs> doomu dugal fan yi dañuy gars yi dañuy convoqué <laughs> te man dama feebar <laughs> man li gars yi antan nii waxuma la rëba sec mais garde bi sax man antunu may la waaw grand yow xam naa ne gëm naa ne yow fi ñu toll yow tamit ñi ñi ñi ngi téléchargé convocation ci yow est-ce que mën naa la wax lenn waaw hmm. y a un grand économiste bu ñu doon wax Kens. ku ne dégg na ko hmm. nee na à long terme nous sommes tous morts yow loolu nga may wax long terme la hmm. diggante xàcceeg dóor la te dafa yàgg boobaa daal Sénégal du bouger les Sénégalais mag yow ak ñun ñi ñoo fi nekk mhm. gone yi